Ousmane Sonko mi ngi dem di wuy ji juge bi euh, ñu dogale ko ci yoon wi jàpp ko yóbbu ko police la nga xam ni moom la ñuy joxe aw lay mooy trouble à l'ordre public maanaam dafa doon indi ay jafe-jafe ci euh, mbeddum buur man nag li ma ciy jëkk a wax bari na ay tomb par benn lañ leen koy defal waaye bi jiitu mooy juge boobu nga xam ni moom moo délivré benn convocation benn citoyen citoyen bi jóg dem di ko wuy ji ci réew mu normal juge yaakaar naa ne policier ëpp ko sañ-sañ ëpp ko baat bu juge convoqué benn citoyen policier amul droit sëf lu ñuy mën a tudde flagrant délit boo xam ne bii dañ ko gis mu def loo xam ne lii ab jalgati bu jéggi dayoo la mu rey nit wala mu jël alalu jàmbur boobu mel noonu wala yenn xeeti jëfin yoo xam ne yi ak màttay la ak jaay ko njëbur su dul loolu dañ ko war a notifier beneen infraction bi ñu jàpp ne def na ko mooy lan trouble à l'ordre public suñ ko ko notifié ba noppi bàyyi ko mu dem wuy ji juge bi même buñ ko doon encadré topp ko ñu ne flagrant délit la dañ koy topp jiital ko ba mu dem wuy ji juge ba fële su wuyoo ba noppi su leen neexee ñu jàppe ko foofa yóbbu ko fa leen neex mën nañu tam def lu xam ne lii mooy apaiser su fekkee ne démb dañoo jàppoon ne ñooñu dañoo war a wax ak a def luy dalal xelu nit ñi di moytu xamb aw ay waaye ngeen dikk jàpp ko juge boobu dégg naa sax ñu ne moom dessaisir na boppam am ñu ne dañ ko dessaisir ci dossier bi maanaam nangu nañu dossier ba wala boog moom ci boppam raxas na ci ay loxoom jàpp naa ne nag loolu man de su ma doon juge xaw ma yoon de waaye façon boobu man ku ma ko def ma delloo la la nga ma dénkoon ñu gis nag ay forces de défense yoo xam ni yi et de sécurité maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy moytu ñooy saytu suñu kaaraange suñu jëmm yi suñu alal yi suñu kër yi suñu njaboot yi ñu seen ci loo xam ne lii jéggi na dayoo démb ci di xeex ay gune ci mbedd mi di leen sànni ay grenade wàccee ay char de combat ci mbedd mi ci ñoo xam ne nee nañu Aïssatou Tall Sall moo ko wax nee na ñun suñu force de défense et de sécurité mënuñu jàmmarloo ak ñi nga xam ne ñooy trafiqué bois mbat bant boobu nga xam ne moom la ñuy wax ci Casamance ak li ko wër waaw force de sécurité yoo xam ne mënuñoo jàmmarloog ay trafiquant nga jàkkaarloog ay jeunes génne arsenal bu toll na bii loolu day ku ñu ko wax sam xel du ko nangu sam xel du ko nangu ndax nag bois boobu nga xam ni moom la ñu bàyyi ñu koy saax-saaxee ñu ne amuñu lu ñu xeexeek ñoom ay milliards lay générer ci ay alal ay milliards waaye waxuma génération euh, bi muy générer ay milliards déedéet waaye la nga xam ni moom lay jur ci alam bi nga xam ni moom la ñuy dagg garab yi di ko yóbbu ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci désertification ëllëg suñuy doom ak suñuy sët duñ fi fekk suuf duñ fi fekk euh, euh, garab yaakaar naa ne loola it moo gën a tiis kon force de défense et de sécurité bi lii ñu génnee démb di ko xeexee ay jeunes ci mbedd mi buñ ko génnee woon yaakaar naa ne euh, trafiquant yooyu ñoom ba tey seeni wax jeex na su fekkee dañ leen a jox ay ordre contre ordre nit moo koy jox boppam parce que yow yaay xam ni lii ñu la bëgg sant moom jëmul kër ndax ay woo xam dañu bëgg mu bañ a sori nag war ngeen ci mën a jël ay mesures yu bokkut ak façon bii ñu def démb nga xam ni préfet bi ci boppam moo wàcc ci mbedd mi di xaabar xaabar naan nañ leen gazé nañ leen bombardé loolu ñépp gis nañu vidéo yi ci internet yaakaar naa ne kuy wax jàmm ak di dox jàmm doo doxale boobu façon réew mii nag buñ fi toogee naan juge yeeg procureur yeeg euh, waa justice bi nañu jël seeni matuwaay nañu leen def nii na ñoonu jaru ko ndax nag xale yi nekk ci mbedd mi sol seen tubay yi wàccee ko ba ci suuf ñu koy tuddee kiris ñoom ñoo tànn wàccee seen tubay waaye nit ku bëgg boppam respecté boppam fonk boppam moom bu wàccee tubay di am moom moo koy defal boppam waaye du kenn mooy téye ci tubayam di ko ko wàcceel li may bëgg a wax yaakaar naa ne ñi dégg wolof xam nañu li may wax nit dafay am personnalité boo xam ne bii moom lay incarné ak dignité bu muy sàmm boo xam ne bii kenn du am sañ-sañu di la sant wala mu lay tere loo xam ne lii méngoowul ak njëriñu askan wi kon loolu bu ñu toogee bañ leen di wax nuñ koy doxalee ñoom ci seen wàllu dé éthique ak déontologie mooy ñoom seeni wax jaratu la wax ngeen seen démb nag ay image ay nit yu ñu tuddee nervi yi mooy ñoo xam ne ñii doole rek la ñuy jaay am na ñu génnee ay liste man loolu gëmaguma ko ndax yaakaar naa ne du lu yomb am su fekkoon ne dañ leen di jëlee noonu yaakaar naa ne kayit wa du yomb ala kulli xaal mu kayit wa di dëgg mu ñàkk di dëgg image yi moom li mu wane moom lu am la ay nit ci ay oto yoo xam ne oto administration la ñu jël leen jox leen ay yat ñuy kar ay nit ak a dóor gis nañu image yoo xam ne ay nit ñoo xam duñu ay alkaati di wàcc di jàpp ay nit ci mbedd mi di leen bunduxataal loolu yaakaar naa ne ministre de l'intérieur bi ko doon weddi sànq ragalul yàlla du rus du yaras ndax bu doon ragal yàlla tey rus te yaras toog ca këram lu mu gàtt-gàtt mi ngi jàkkaarloog télévision di seen ñooñu di jëf-jëf ji mu naan moi je ne connais pas de nervi day wax lu ko neex du du waxi gor nit dafay assumer lépp lu ci mën a xew nag nga nangu ne kay xëy na ay bavure la wala ñàkk taxaw la waaye nga nangu li nga xam ne lii ñépp ñoo ko gisandoo ak seen bët nit du am yenn at yi di fen nit du am yenn at yi di ñàkk jom dafay assumer responsabilité kon nervi yi lu ama ama am la muy ay gune yu jara yërëm nag yoo xam ni yi loolu ñu leen di def loo su fekkoon ne xam nañu seen personalité xam seen gëdd yaakaar naa ne kenn du leen jàpp di leen jëfandikoo ci façon boobu nga xam ni moom lañ leen di jëfandikoo kaay jaay sa doole jëlal ay cours jëlal ay yet nga jàmmaarloog ay nit ci lan dañuy kaas seeni droit dañuy wax seenu naqar loolu yaakaar naa ne kenn wërta nangu nekk cim réew ñu lay xamb di la jëme ci sa moroom moo xam ne mii mën na am booy dóor sax sa mbokk la moo xam ne jege ña la te xamuloo ko ñu ne déetawaay ngeen seen ci biir yëf yi ay raaxaloo ndax bu fekkee ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci xale yi doon marche la man de jàpp naa ne xanaa waruñu dem di yàq alalu jàmbur ci façon boobu ay toji oto yàq ay ay bitigu jàmbur ñu ne déete ñi ngi songu Auchan ak ak station yi foofu nag jàpp naa ne njuumte ngi fay bëgg a am njuumte goo xam ne gii gu jara jubbanti la parce que xawma Auchan de waaye bari na ci station Total yoo xam ne ñi ngi ci réew mi Shell yoo xam ne ñi ngi ci réew mi ay doomi Sénégal ñoo leen moom ay doomi Sénégal ñoo leen moom ñoo dem déposer seen caution def seen demande investir seen xaalis defar ay station di ci am xaalis di ci employé ay doomi Sénégal quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi ñëpp teg nañ ci seen bët ci réew mi la ñu juddoo yaroo ci réew mi ñu jël leen employé leen di leen fay salaire kon yaakaar naa ne dem fa taal ko wala nga yàq ko loolu bokkul ci liy defar am réew am réew du doxee noonu gis naa ay nit ñoo xam ne ñii nee ñu ay religieux lañ ay nitu diine ñooñu yaakaar naa ne ca kanam tuuti kenn dootu fi déglooti nit ku ñu naan nitu diine la ca kanam tuuti parce que nit ñi ñoom désavoué nañ leen bu yàgg ndax nag da ngay dégg ñu ne bu ñu waree wax nañu wax bu ñu wër dootoo xam léegi yow kañ la ñu war a wax kañ la ñu wër ta wax kañ la war a génn kañ la ñu wër génn ndax nag li am solo mooy am na ku fi nekkoon daan ci waslu ak néew na bari muy maam Abdou Aziz bu waxee kilifa ji caw ci suuf au moins dana génn ci kaw wax ak njaboot gi su waxee kilifa ga ca kaw ñëpp dégg ko loolu yi tamit ku nekk teg na ci sa bët Sénégal dañ ko daan gis muy waslu àq ñi fi nekk loolu muy def war nañ ko mën loolu mu doon def wër nañ ko mën bàyyi na fi ay njaboot bàyyi fi ay doom bàyyi fi nag ñoo xam ne buñ jul doomam ak njaboot war ay jullit lañu war a mën a gis aw ay waslu ca seen àq ndax seen yàlla dogal seen kàddu mën a àgg fu ñu bare seen kàddu mënta àgg dégg naa ci am na ci ñu ci wax léeg-léeg nga gis ci ñoo xam ne ñi gémmiñ gu nàcc dong la ñuy waxee am na ci religieux yi ñoo xam ni dañu mer parce que la ñu bëgg defaleesu leen ko loolu Sénégal am na lu luñ ci xam am ci ñoo xam ne ay politiciens mbubb bu politicien la ñu sol ñoom it dañuy wax parce que seen gémmiñ day nàcc ñàkku ci it xëy na ñoo xam ne yàlla rek moo leen motiver ñuy wax ngir yàlla ak réew mi ñu bokk ak diine ji ñu bokk ak ngor gi ñu bokk kon yaakaar naa ne sénégalais yi war nañu mën a xàmmee kan mooy kan ci biir coow lu bari li ngay dégg ñu bu ñu taal réew mi bu ñu euh, def doom réew bi mais attends histoire u àddina réew yi nga xam ne yii tey jii taxaw nañu jon bari na ci yoo xam ne jaar naañ jaar jaar jaar yoo xam ni laata ñuy taxaw lu ne xew na fa kenn du wax ne nañ taal waaye processus nag dafa am boo xam ne bii bu xasee ba enclenché mënuloo dem ja nekk ca arène ba di bàkku di bàkku di bàkku def say débat déeb ba dara desul lu dul jàkkaarloo di xeex ba ngeen songante nga naan ko galgal du am wala nooju du am wala mbot du am déedéet bu xasee nag ba àgg fenn fi nag amatul ay bu la kenn taal réew meek nangam ak nangam nangam nan nañ nañ topp processus bi li nga xam ni moo ci jaadu citoyen dafa am droit nguur am droit kenn ku ci ne am nga loo xam ne lii mooy sa waru mooy sa waru warugar ci mbir mi mooy devoir yi devoir yooyu nga xam ni moo war citoyen bu def ko nguur def ko kenn ku ci ne def ko média yi lii xew ci biir nit ñi ñu ngi koy gis te loola du lu rafet du lu jekk il faut que ñu bàyyi média yi di jottali nit ñi xibaar yi niñ ko war a jottalee man de déglu naa ci ay rajo démb seetaan ci ay télévision démb waaye wax dëgg yàlla gisuma ci débardu débordement yoo xam ne yii jar nañu ci dagg ay euh, ay signal yoo xam ne yii signalu rajo ak télévision loolu lu jar a seet la il faut que ñu xam nag ni réew mi dañu ko bokk dañ ko war a bala ñu koy def leneen lu dul péncoo bu ko defee nag réew moo xam ni mii jafe-jafe yi bari na ci wet gu nekk ci wàllu wér gi ci wàllu njàng mi ci wàllu euh, lekk ak naan ci wàllu leneen ak leneen mais faw citoyen yi jog wax la leen naqari loolu lu jaadu la bu ci nguur mënee def mu def ci bu ci nguur mënta def mu bàyyi keneen def loolu nag mënta ñàkk cim réew faaw nit ñi exprimer seen mécontentement seen désarroi seen naqar ci lu mu mën a doon bu ko defee nag mbir maa ngi noonu mbokk yi defe naa ne dégg ngeen ko leer na ci bopp yi ñu fexe daal ba kenn ku ci nekk taxaw ci sa kéemta lay kàttan ca la nga xam ni moom nga war a mën a taxawee njiitum réew mi nag waxoon naa ko la ma xam keroog newoon naa ko kii ngeen mujj song moom bokkut ak ñu jëkk ña te loolu conseil la rek bu ma ko doon jox yaakaar naa ne su ko déggee mel na na feeñagul dégg-dégg ba euh, moom wax dëgg yàlla défaut yi dafa bari défaut bi mooy du dégloo te bu du matt di deltu ginnaaw soo ngeen ko seet lool xaw ma nag tombee waral ay gaaf waaye bari na fu réew mi di bëgg am ay jafe-jafe la muy doxale jàpp ma ne yoon woowu baax na nga jékki-jékki dugg sa avion ne tir dem génn réew mi mais réew bu fekkee dañ la ko dénk te nga xam ne dafa jëpp dë dëgmal ay jafe-jafe da toog yow mii yaay capitaine bi waruloo daw di cëppeelu te bato bi nekk ci di xuu di suux am ay nit ñu nekk ci biir bato bi dangaa war a taxaw yow ba bato bi ñi ci nekk ñëpp rëcc wala nga ànd ak ñoom lu cay mucc di nga xam ne da ngay bokk ci ñooy mucc di waaye amoo droit di daw di bàyyi sa sa xeex ginnaaw bu ko defee nag yooyu daal bokk yi mënuñu ko woon a bañ a dolli ci waxtaan yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.